Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre euh, télévision nationale. Comme tous les soirs, c'est avec plaisir que nous vous recevons ici dans votre émission Team Qatar. Vous le savez, c'est l'émission qui vous parle de l'actualité de la Coupe du Monde 2022. Nous, avons fait ça saa la rek dalal télévision nationale di leen wax nag ngeen yegg si jàmm Team Qatar Mon émission bi nga xam euh, RTS moo leen ko jagleel ngir ngeen mën a xam lépp la ci Coupe du Monde bu Qatar ngoon bu jot nag ma ànd ak sama panel d'experts tey nag sur ma gauche

dina leen seen sañ say rafet na suñu nuroo leen ba xalaa tay moom xol yi daa gisee tay mais boo leen demee bay am am sponsor non amuñu sponsor dafa tombe non non neen neen ma mënu ma tay dafa tombe rek man sama boss sama rakk moo ma ko may ah Sénégal si di roqaya kii madame Bane moo fi jaar kon xam nga loolu. moo fi jaarati ah, de waaw moo fi jaarati sax la ñuy wax nee ko allah bii moom tañ na. Bane ma lay dalal di la wax ne tey macha allah sañ sa rafet na. di la di la fay bu baax Fatou Bota di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi di mm. nuyu tamit euh, coach euh, Badara. di nuyu tamit euh, coach Diallo mm. di wax di kontaan nañ trop teewaat fii nga xam ne mooy ci ci émission bi tey. te damaa def maama quoi. non maama moom tey jegewul la maama ah. ñaar rek tey non tey balaa bi mu def jegewul sa bii moom non non maama nag maama muñal rek tey moom baan. bàyyi ma topp ci ginnaawam rek bàyyi <laughs> Brésil Brésil Brésil <laughs> ah, laa woon euh, dañuy def un coucou à Moustapha Sadio pour lui souhaiter donc très prompt rétablissement xam naa fii ak ëllëg incha allah dina gën a tane pour ñëw mm. fekkee euh, team Qatar euh, tey nag lu ñuy wax rek mooy ni que ñu ngi ci beneen maanaam beneen situation. qualification ci biir coupe du monde bi euh, journée tay bi xam nañu déjà ñan ñoy euh, première euh, équipe yi nga xam ne ñoo war a dem foofule ci demi-finale yi muy doon Croatie bu Luka Modric ak Argentine bu leona bu Léo Messi leneen lu ñu mën a wax itam mooy ne que mbuub mi ngi ci buumu jokkoo bi balay dara nag dañ koy nuyu dalal ko ci team Qatar di ko wax ne rek mbuub ñu ngi lay nuyu di la dalal <laughs> waaw Fatoumata savane maa ngi lay fay di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci plateau bi di nuyu tamit téléspectateur u RTS. waaw yaa ngi foofu nag mu xumb lool ñu xam ni veille de match la ñu nekk surtout li nga xamante ne mooy sunu quart de finale bu Afrique bi mu doon Maroc ak Portugal mu mel ni tey sax da nga amaale ay gan. waaw waaw ñi ngi sukk wakif nii sukk wakif moom. fii la supporter yëpp di daje nationalité yu bëree bëree bëri bëri c' est vrai que nag gënoon na bëri ay nit ci premier tour bi mais xam nga fi mu ne nii am na pays yu bëri ñibbi nañ seeni supporter tamit ñibbi nañ donc affluence bi xaw na wàññeeku tuuti mais tey nii gis nañ <laughs> waaw la ay supporteru Arabie Saoudite euh, moom drapeau bi nii. Please, guys, please, please, please, please, please, please, please. Morocco! Morocco! Morocco! Morocco! Morocco! Morocco! Okay, okay, okay. waaw Savané nga gis ni moom mooy uh, ay supporters marocains ñoo fi nek di def ambiance mu am tamit ay argentin ay supporters u Brésil ñooñu ñëpp ñoo nekk fii ci Soukou Wakif Euh, dégg-dégg bi nag du du parce qu'ils mettent beaucoup beaucoup beaucoup d'ambiance mais loolu mooy coupe du monde aussi coupe du monde c'est c'est l'ambiance hors des pelouses avec des supporters yoo xam ne nii fu nekk la ñuy ci ci àdduna bi tay nak ñu dund ñaari match yu am solo ay match yu palpitant maanaam match yo xamni ne vraiment euh, egg na fi nga xamni mom moom la ñuy xaar ay match de quart de finale mu doon ay match yu yu ñu jouer ba mu jeex ba dernière seconde yi dañ ko jouer ba dem sax ci tiro bi mu doon ñaari situation yo xamni dund nañ ko ci ñaari match yu bokul tay nan ngeen dundé journée de de football bobu tay waaw tay suspense bi bëri won na xam nga bu ñu aggé ci quart de finale yi daanaka équipe yu mag yi rek ñom ñoo ciy des tay boy xol Brésil ak Croatie nekkon na match bu neex bu bari suspense euh Brésil duggal ci prolongation bi ak Neymar Neymar tay bat na du moins égaler na recordu Pelé légui tolloon na ak Pelé nombre de buts bu mu duggal ci équipe nationale du Brésil 77 buts wante défaite bi mo xaw a nëbb performance bobu mu def parce que Pelé c'est une légende ak ñetti coupe du monde yu mu gagné fi mu yaramam sutante mu feebar euh, brésilien yi bëggoon a gagné coupe du monde bi ngir moom wante finalement loolu du nekk wante Neymar tey égale na tey euh, recordu Pelé ci nombre de buts bi mu dugal euh, ci coupe du monde. après defetu Brésil bi aussi ñu gis ni Tite entreneur bi dem na moom nag waxoon na ko avant avant coupe du monde bi que ak lu mënti am rek que mu gagné coupe du monde bi que mu bañ ko gañee après coupe du monde bi day quitté euh, sélection euh, Brésil bi Brésil nak am mbetteel parce que tay gis nañ équipe bu Croatie bo xamni équipe bu bax la bo xamni dem na tir au but ba am li nga xamni mom moy mooy euh, victoire bi. benen match bi tamit wa wa dina dina dinaa ñëw ci supporteru Brésil bi légui peut-être que ñu xamlé tamit Argentine bu Léo Messi. moom it tey amoon na match bu jafe ci digganteem ak Pays-Bas mëne ñaari bal ci dara après pays ba égalisé ñu dem tir bi but Argentine daa di daa di gagné fi mu ne nii Savané maa ngi ak benn supporter boo xam ne nii moom supporteru Brésil la xam naa ni forcément du brésilien wante fans la ndax mi ngi sol euh, micro mi ngi sol maillot euh, Brésil hello guy. yes how are you. come from which country. Saudi Arabia. <laughs> What do you, what do you think about the game of Brazil? Uh, I'm very sad about the game, but uh, as I said, and uh, every, day, every day I said Brazil will never lose. Next World Cup, inshallah, will be for Brazil. Wow, mom, supporter of Brazil, mingi dek Arabi Arabie Saoudite ngeen gis ko nii mu mayo mayo Brazil bi nena na fi mu ne nii dafa triste parce que Brésil dafa ñàkk wante am na yaakaar ne Brésil dina gagné coupe du monde bi di ñëw. waaw inconditionnel lu Brésil yi dañu bari tey Ousmane Ngare Faye ci la bokk nee na compétition bi yàqu na parce Brésil ñibbi na mu doon lu am solo euh, Ibrahima Mboup euh, tey jii <laughs> bu ñu la bëggee laaj tey ji euh, lan mooy li nga xam ne mooy programme mu ëllëg bi ak match bi nga xam ne dina important lool suñu diggante ak ñi nga xam ne ñooy Portugal ndax su ma ko waxee damay wax rek représentant wu Afrique bi Maroc Portugal nan ngeen nar a defee li nga xam ni rek mooy match bi ak nan lañ ko préparé. waaw match bi mi ngi am 18 euh, heures euh, locale ñetti waxtu lay doon foofu ci Sénégal match la boo xam ne incha allah dinañ ko commenter ak suñu naataango bu rajo Sénégal di doom Dom Diouf euh, mu nekk loo xam ne ni ñi ngi koy ñi ngi koy préparer bu baax pour faire vivre aux téléspectateur Euh, temps fort match bobu inshallah Inch'Allah. Afrique bép nak euh, daal di euh, ci ginnaw Maroc gis ngeen supporteru Maroc yi di brandir drapeau Maroc toute l'Afrique est derrière le Maroc demain objectif bi moy Maroc je briser le plafond de verre pour mën dem ci demi-finale coupe du monde parce que Afrique musul dem demi-finale Ta am nañ yaakaar ci équipe bu Maroc bi. que demee Maroc dina écrire l'histoire ginaaw bi mu éliminer équipe bu Espagne bi. tay dal luñu ñu wax moy Afrique yëpp ci ginaaw Maroc euh, suba ñëpp dinañ ñaan ñëpp dinañ def euh, luñu ñu def bu ko defee Afrique enfin mën dem ci demi-finale euh, coupe du monde. benen demi benen quart de finale bi mom mi ngi am 22 heures local dina nekk. 19 heures foofu ci Ndakaaru mu war a am euh, ci diggante euh, France ak Angleterre mu nekk tamit match bu bu neex lay doon fële ca stade euh, Al Bayt ñu bëri di ko xaar ndaxte derby la ñaari réew yu dend la ñaari réew yoo xam ne nii dañuy wujjee ci football ay at a ngi nii ñu ne nag ñuy xalaat nag ne dina nekk match bu équilibré entre Angleterre ak équipe de France incha allah. bu baax a baax da nga am buzz nii RTS amaale buzz foofu noonu eh, ca Qatar <laughs> loolu la ñu seetlu. <laughs> dégguma bu baax dégguma bu baax. sama da nga am buzz foofu dafa mel ni da nga am buzz yow en tant que journaliste bu télévision nationale waaw kon ñu ngi lay bàyyi nga dem te di <laughs> au revoir. waaw dégg dégg bi neexul trop. ma ne kon ñu bàyyi la kon nga dem ba ëllëg incha allah comme ça nga mën a préparer li nga xam ne mooy match Maroc bi. merci beaucoup Ibrahim, à demain avec autant de plaisir Ibrahim Mbouf depuis Doha et on remercie bien sûr toute l'équipe technique qui l'accompagne il s'agit de Papa Life de Ousmane Sissé, bien sûr de ndeytom Tom Omar Ngeban. tous sont là-bas et bien Diagne du digital vous êtes encore là-bas pour faire le travail RTS pays démérité wul benn yoon au contraire koo xamante ne à 72 minutes ñu ngi la mëne 2-0 nga ne doo bàyyi te ça veut dire que yow aussi da nga am esprit compétiteur te loolu la ñu gis tey. lii lañ doon xaar ci quart de finale yi te yu yu rëy la woon. Mm. ñu doon xaar équipe bu nekk def kéem kattanam ba tey ñi nga ne doo ñàkk ñàkk sa match. Mm. bo gisee match argentine bii nga xam ni eh, tey football feeñ na hmm. football feeñ na trop trop trop tactique feeñ na entraîneur yi kenn ku ne war nga sa xam-xam te match bu demee ba 2-1 ba 2 minutes moo des match bi jeex ki nga xam ni pays bas tamit ñëwaat ci li nga xam ni doon match bi daal égaliser ba yóbbu ci pro ci presque sax ci fin temps waa additionnel bi lañ lañ nekkoon daal di ñëw yóbbu ki nga xam ne moo di Argentine ci prolongation yi yóbbu ko ba dem ba ba tiro bi nga xam ne tey euh, football feeñ na te tamit euh, entraîneur yi li ñuy wax entraîneur bu mag tey gis nañ ko ci gis nañ ko ci ci ci ci match bi tax na nag euh, Argentine nag démérité ki nga xam ne mooy Pays-Bas démérité wul waaye Argentine dafa gënoon a am chance diñ naan chance su vainqueur. maanaam tey lépp lu mu def rek dafa àndoon ak moom. ba ci bal bi dal ci poto bi. kon gis nañu tey Argentine Argentine boo xam ne mati yu ci bëri at yi nga wees bu ko daan jiyee gis mu ñàkk ko. tey nag mu ñëw indi beneen mentalité. naa rek wax ni Pays-Bas sax moo nekk ci match bi. possession bi moom moo ko gagné. ndax am na 51 pour cent ki nga xam ne mooy Argentine am 48 pour cent. ñu jëw ci li nga xam ne moo di occasion yi Pays-Bas 4 la am Argentine am 11 occasion. tirer 6 pour Pays-Bas, 14 pour l'équipe Binga au Modi Argentine. 2 tirs cadrés pour Pays-Bas, 5 tirs cadrés pour l'équipe Binga au Modi euh, Argentine Bouléo Messi. Voilà, donc euh, Badar euh, sur le plan technique, tu as de nous dit ce match là, parce que am na ay faits de jeu yu bëri am na également benn benn ascendance boo xam ne Argentine dem na ba am ko ba 72e minute nga nekk confortablement ci sa victoire. Mm. après à 83 minutes nit ki ñëw dugal benn nga defee ne jeex na ngeen dem ba ci temps additionnel yi nga ne 2-1 lay jeexee mu dugalaat mu doon 2 ñaari équipe yi doon football tey Argentine la ak pays ba mm. donc euh, ñaari équipe la yoo xamante ni xarañ nañ trop si wàllu football. tase nañu aussi li ñuy wax match bu classique la. Mm-hmm. donc euh, ñu ngi ko doon xaar. parce que yàgg nañ tase si coupe du monde. mais tey jii euh, soo xoolee coupe du monde bi mu commencé ba léegi ñaari équipe yooyu euh, ñooy ñaari équipe yi nga xamante ni seen football moo gënoon tëju. si si si coupe du monde parce que Hollande mm. euh, système de jeu bim muy presque bim commencé ba léegi moom la def. Argentine peut-être bi perte match bu njëkk bi contre Arabie Saoudite donc le changer. Mm. soo dee xool Argentine. premier biom bi Molina moo ko dugal. Mm. mooy piston droit bi. deuxième bi aussi Acuna moo indi penalty bi. mooy mm-hmm. piston gauche Messi dugal donc euh, pour wane ni rek liñ doon xalaat. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw nekk na parce que euh, dafa amoon densité si milieu terrain soo xoolee. match bi foofu dafa dëgëroon. match bi mun nañu wax ni bii bi bii bi duggee. lañu ñu gis ni match bi ubbeeku. effectivement ñaari équipe yëpp xam nañu que fii. Euh, match à élimination directe là donc il faut que ñu. ñu jouer rek moo fi des. jouer rek fi c'est ça. mais tey aussi gis nañ ni que ku mel ni Messi. tey presque mun nañu wax ni moo débridé match bi. indi ñu njool après du jouer si côté yi di def ay centre. defe naa ne si aussi ñoom la égaliser pour wane ni que ñoom am nañ potentiel. Mhm. mais malheureusement daaw ñu koon utiliser. tey pour wax ni euh, match bi nu mu tëjoo woon. léegi nag li. Euh, moi, euh, match bi yobou nañ ci émotion yépp waaw waaw nañ parce que tay c'était un match vraiment très mm. fou. bo xamanteni ni tok nañu ba si ñu ñëwaat nekkaat en position de force mais je pense que Pays-Bas tamit biñi ñuy égaliser. Mm-hmm. dafa fekk presque ñu jeexal. parce que après ñu égaliser ba paré ba dem prolongation mais so déxal prolongation yëpp dañ ko baye ak Argentine. donc tay su Argentine demee ba ba muju gagner tiro bi bi parce que da qu'on mérité. après il y gardien bu gardien si si kai, c'est un capitaine aussi. dafa ma un exemple bi par rapport au capitaine de équipe bi muy Van Dijk parce que a fait des tirs au bio. Mm-hmm. donc le football dal un euh, match bu am solo le C'est seetaan euh, si intensité mm-hmm. si émotion si changement tactique Euh, daf bëri ay changement tactique mais entraîneur Argentine defe naa aussi. Mhm. li ko dal parce que bi mu mënee 2-0 rek. soo gisee dafa teel def ay changement ñaar ñi nga xam ne ñoo indi ñaari but yi la yëpp daf leen a génne indiwaat ñeneen parce que moom aussi dafa bëggoon a sóor. Euh, c'est-à-dire euh, verrouiller si ginnaaw. dëgg la malheureusement loolu moo ko indil. moo déstabiliser moo ko déstabiliser quoi. ñële tamit dañu jëte toute leur force devant. pour mhm. gagner donc moo tax ñu égaliser. après nag. mu ñu jéxal daal en fait. Mm-hmm, mm-hmm. parce que jour yooyu dugg muy Végors muy euh, euh, beneen de Jong bi lig de Jong. donc c' est des jours yoo xamante ni si compétition bi joué wuñ si lu bëri. donc avec cette intensité bi ñu joué démb. Euh, bi ñu joué tey dangay gis ni que à un moment donné si biir prolongation donc dañu dañu jeexal parce qu'ils ont trop donné mais tay lepp solo aussi moy gardien ou Argentine bi Martinez il a fait des arrêts décisifs il a été d'une importance capitale et puis ça c'est joué au aussi parce que mm-hmm. série penalty aussi après un tel match aussi, Neri, il faut que Neri solide. Quoi. D'accord. Euh, Mamadou Diallo, je le disais tout à l'heure, euh, qui euh, match, il y a euh, dañuy dem ba tir au but dem ba 120 minutes hier. mais yow dans le jeu doo ko sentir parce que match bi day emballé wu presque 120 minutes day melni ñi ngi soga a commencé match 45 minutes alors que ñi ngi won ba 120e minute ba pare continuer li nga xamantene ne euh, ba temps d'arrêt yi nga xamantene ay près de 10 minutes la té do yek relâchement do yek sonn ni ci milieu bi ni il côté yi ni à l'attaque lolu lan mo koy def préparation physique pour paré la wala c'est juste parce que les joueurs ont eu de la compétition dans les jambes avant ñu yex ci Coupe du Monde mais non seulement il faut que nous ramenions coupe du monde la Niger. parce que quand vous avons la coupe du monde c'est de haut niveau coupe du monde du championnat ou même coupe d'Europe. parce que nous avons dit que nous xarañ si équipe nous avons gën xarañ équipe nationale yi la donc coupe du monde nous fay une bu physiquement pareille, mais mënoo ko football donc surtout coupe du monde moom boo xoolee tactique la si physique de mm. mais nga avons sa xel aussi mentalement parce que équipe de lay yóbbu ba tiiroo bi exactement parce que tay bo xolé amna façon équipe yo xamné boy dajé dajeex ñoom mm. dinañ xamné yow ya leen ëpp doole mais dinañ djéma négocier yow ba yóbbu la tiiroo bi loolu da fay am mm-hmm. ku melni comme Croatie wax wax nañ ko fi kéro. mais après Argentine Hollande aussi j'étais surpris gis équipe bu Hollande bo xamné tay match yi match bi mu football pour man gëj ñu ko football aussi mm. parce que aussi tamit euh, boo xoolee Argentine équipe la boo xam ne comme ni koy équipe boo mais ne dafa tëñ mais équipe buy gagné non seulement deuxième ballon yi aussi présent ci terrain bi aussi mais indi équipe bu euh, Hollande boo xam ne dañ leen contrer aussi tamit comme nous ñu ko waxee chaque jour waxoon nañ ko fi démb ma ne je pense que coupe du monde bi day tollu moment boo xam ne grand jour yi ñooy def différence bi comme métti tey ni mu def situation bi ñàng mu jéem a lijjanti Ndiko. mais aussi je prends sur le plan sur le plan tactique euh, je pense que entraîneur Hollande bi daf ma gën a neex li mu def tay parce que amoon na ay jours yo xam dañuy ay attaquant xam dañuy dañuy jouer ballon dañuy dribbler wala dañuy ñëw di di jël ci ballon beex yoy bi mu demee ba xam fi situation bi ñàng na li mu doon xaar si ñi gisu dafa indi ay jours yo xam ne jeu direct bi la ñuy mën tey bo xolé malgré que coach wax nako ko jaar nañ ci flan yi mais aussi bo amulone ay avant-centre yoo xam ne yuy lañ nga def di yegal longue ball yi nuy tubab nan di yekati ballon yi boko deful won boko amulone kon duñu dugal je pense que si lolou lañ profito di dugal sen biti mais aussi ça, même yaa ngi wax coup franc bi mais je pense que lolou travail la bo xamné équipe bi da ko yag travail parce que non seulement sen premier coup franc waa tek na ñew en force dóor ko mais non seulement couvrant bi muy door ni ken xalat ko wut bo gisee tay li ko ci diallo wax legui match bi mu ne beureut dañu song brésil song ko song ko brésil amul fu mu dem ñu bayiko bal bi da taxaw deglu ko diko deku def bloc ba mm-hmm. biñ defé bloc ba nak brésil amatul fu mu jaar mm-hmm. bu occasion bu mu am ñu ñu ñu nan lañ démé ba prolongation ki ñëkëlé na ñëkëlé na duggal ñëkëlé na duggal ñëkëlé na duggal ci saasi da nga gisaat ci biu brésil bi di biyu euh, égalisation euh, Croatie bi loolu Brésil waru ko jël ndax déjà excentré bi mi ngi dox latéral bi mi ngi dox te moom moo waroon fàtt foofu nga xam ne fa lañ jaar pour centré bi déjà moo tax coach bi même coach tamit lu mu ay ay ay boo waxee ni man kat sama attaque mooy sama mooy sama moom lañ ma xamee mooy sama identité mais am na fu match di tool da ñëw taxaw bu doon nawetaan la dañ naan touche du fees boo mënee bal bi lu mu mënti doon da ngay kajj mu dem ak championnat Sénégal da ngay tëdd ak nu mu mënti demee marché boo mënee da ngay fexe rey temps di nga jël benn cinq mille boo xam ne di nga ko di nga ko rey mais tere terewul tey Brésil nag manque boobu loolu lañ manqué. Mm-hmm. ba bàyyi nag Croatie mu yëg seen kaw. ba indi égalisation bi kon entraîneur loo mën a yor sa identité. Mm-hmm. parfois nag boo mënee ba temps bi des quatre minutes nag da ngay da ngay wàcc. da ci match bi waaw comme ko si wax sànq rek mm-hmm. Croatie moo am cinquante pour cent. cinquante virgule cinq pour cent. possession Brésil am quarante cinq pour cent loolu muy lu rare loo xam ne sax. dañ ko am ci ci match occasion yi Croatie am neuf Brésil am quatorze occasion ñëw ci tir cadré yi benn tir cadré la Croatie am. onze tirs cadrés moom la Brésil am. ba pare ba nga ñëw ñàkk ñàkk match bi. da lay wan ni taxawaay bi Brésil amoon ci match yi taxawaay bi nga xam ne ko ba contre Brésil ba gagné ko ci match voilà demain nak il faut que ñu wax ci li nga xam moy mooy sunu match mu li nga xamantene rek demain dinañ am lo xam lo xam deux match lay doon Maroc dinañ ko am dinañ am également ki nga xamantene mom moy France Angleterre ñom ñaar ñep dinañ jouer ëllëg mu doon nak match yo xamantene match yu important la leneen lu ñu mëna wax moy itam ki nga xam moy Walid Regragui di entraîneur au Maroc bi tay nak jakarlo na ak ña nga xam ñoy taskatu xibaar yi Ibrahima Mboup Mathia Dowa moo ñu fa doxantuloon ñu seetaan. équipe bu bu neex deret lañu gis tey ci tàggatoom bu mujj laata muy jongante ak Portugal entraînement bi amee woon biir complexe Al Duhail yi am teewlu di def li leen seen entraîneur sant ëllëg Maroc fas yéene taxawal Afrique ak réewu arab yëpp ci quart de finale. coupe du monde Walid Regragui euh, mi entraîneur bi wax né euh, lolu daf leen di yok doole ndax xam nañ ne euh, yaakaar bu mak amna ba taxna sen bëgg-bëgg moy dan Portugal su ko defee ñu mëna dem ci demi-finale yi. Walid Regragui yok ci ne xam na ni jongante bi du yomb ndaxte équipe bu Maroc bi dafa bëri ay joueurs yu am ay gaañu gaañu boole ci dañu dem ba série penalty ak Espagne muy luy indi coono wante nee ñaar fukki jour ak juróom-benn la yor te dina def kéem kàttanam ngir teg équipe bu baax suba. ci geneen wàll Walid Regragui gis ne Portugal mooy favori ci match bi wante Maroc amul lu muy tiit te dina jéem a créer surprise génne Portugal ci coupe du monde bi. ci diiru séance de veille de match bi ñu gis ne am na ay joueurs yoo xam ni vélo la ñu def ñoom Romain Saïs Youssef En Nesri ak Sofiane Amrabat daw di wër terrain bi def tour yu néew daal di dem noppalu ji bokku ñu woon ci tàggatu bi ak groupe bi. wala bu baax Ibrahima Mbop wax nga itam ki nga xamante ne mooy Walid Regragui tactique bi mu gis ak li nga xam ne rek noonu la nar a jëlee match bi mu war a jàkkaarloo ak Portugal ñu déglu ko. Oui, il est vrai. Euh, contre euh, l'Espagne, euh, il fallait beaucoup courir. Euh, euh, courir après le ballon on m'a critiqué pour euh, euh, uh, cette façon de jouer contre l'Espagne, uh, mais je me suis dit que nous jouions contre une des meilleures équipes du monde et que uh, nous n'avions pas le choix. Aucune équipe euh, arrive à garder le ballon contre l'Espagne. Je ne comprends pas les critiques que j'ai entendues dans la presse européenne par rapport à notre style de jeu plus défensif contre l'Espagne, mais les équipes européennes ont joué de cette façon également contre l'Espagne, l'Allemagne, la France et d'autres équipes. Donc, je ne comprends pas les critiques de ce style euh, de jeu. Demain, nous jouerons certainement de la même façon. Je pense que le Portugal euh, va garder le ballon, mais il ne faut pas trop leur laisser le ballon. Il faut aller plus loin que ça. Essayer d'augmenter notre euh, uh, position de balle pour essayer de marquer l'histoire. On connaît nos qualités, on connaît nos points forts, nos points faibles. On est une équipe qui est solide aujourd'hui. Pour nous marquer un but, c'est compliqué. Et euh, euh, on a des qualités offensives qui peuvent nous permettre à tout moment d'aller marquer un but. voilà, il faut qu'on reste sur ça. On va continuer avec cette intensité si, on peut euh, encore la donner et avec beaucoup de concentration. Demain, ce match, il va jouer sur des détails. Je pense que le Portugal, ils vont, ils vont accélérer dès le départ avec les 120 minutes qu'on a fait. Ils vont vouloir se régler les problèmes rapidement. Et nous, on sait que s'ils ne marquent pas rapidement, ça va être très compliqué pour eux. Et si on arrive en plus à la mi-temps avec un match nul ou qu'on mène au score, ce sera encore plus compliqué pour eux. Donc eux, ils ont intérêt à marquer très tôt, sinon ils vont rentrer dans, des problèmes. Et euh, euh, ça va être notre, plan de jeu. voilà le plan de jeu Je la coach plan de jeu bi baax ça. Ah, plan de jeu mais je pense que dafa xaw dans un peu quoi. parce que parce euh, quart de finale donc euh, am engagement amnañ euh, que am solo trop. Mm. équipe le Bois xamanteni jëlul voilà ensuite joué nañu ak ñetti Europe ñetti équipe Europe ñom Croatie ak Belgique ñoo Poul, gagné après Espagne. Mm-hmm donc savons le football européen bi un peu d'autant plus que c'est un jury la ñu vie. mais je pense que c'est un match qui est très da ko comme nous avons jëlee woon match yi cest à dire sommes dans la position d'outsider. après engagement bi jour mi di demain. Nous continuons de peut-être euh, il a parlé aussi de la fatigue parce que c'est sûr hein parce que joué contre Croatie joué Belgique mm-hmm. après joué contre Espagne ba dem tir au but mm-hmm. Espagne effectivement a une possession donc je dañuy dans lu bruit. Mm-hmm défendre naa ni côté boobu mais lolo euh, détermination équipe bi détermination joueurs yi ak engagement bi ñuy joué mon mun na jël le dessus sur la fatigue je pense que ni qui c'est même match bi passé contre Espagne hmm. ça gaañu gagne gaañu boo xamante ne généralement jour bu ko gaañ da ngay guen mais dafa eggale hmm. am rabat je pense que ba dernière minute ya nga gis mu def pressing di hmm. jël ay bal di di yek donc euh, euh, Ziyech a un moment donné bëggoon na génn entraîneur bi ne ko continuer donc c'est important loola euh, ki nga xamante ne mooy Walid Regra gi également moom mooy euh, benn coach bi nga xam ne rek moom mooy yóbbu euh, fa nga xamante ne mooy li ñi nga xam ni ñooy marocain yi mu mel ni dañ may jox euh, programme ki nga xamante ne mooy jaar-jaaru Maroc ci phase de groupe yi ak itu huitième de finale bi ni mu jaar ba yegg si fii mu doon 0-0 bu mu def ak Croatie def ko 2-0 euh, boo xam ne daf ko door Belgique ba pare euh, door itam ki nga xam ne mooy Canada 2-1 ñu fàttali ne Canada bokk na ci dëkk yi gën a xarañ foofulee ci Amérique du Nord Maroc door ko huitième de finale yi 0-0 lay mujjee ak Espagne ba mu jàll ci li nga xam ni moom mooy tiro bi mu door leen 3 buts

dans l'histoire qui font que peut-être, Inch'Allah, avec des résultats, et c'est à nous de travailler, les entraîneurs africains et arabes, mais déjà, euh, les statistiques, déjà, cinq entraîneurs africains dans cinq équipes, tu as plus de pourcentage que Ouled Ezolfraki, Recono des Donc, comme il y avait cinq entraîneurs africains, eh ben forcément, quand le Sénégal est passé et le Maroc, eh ben ça fait deux entraîneurs africains qui sont passés. Et on avait plus de chances d'avoir un entraîneur africain en quart de finale, puisque les entraîneurs africains étaient tous africains. Et, c'est statistique, c'est mathématique. Donc, à un moment donné, Dikachi, c'est comme l'expérience. l'expérience. Ouais, manit, ça fait 10 ans que j'entraîne au Maroc. c'est Il a pas l'expérience. Ah, Ah, 7 matchs, en quart de finale. Yara, Shrahli, qui fait hein, C'est Oussama. Qui fait Wahed, il n'a pas l'expérience. Il dira compétence. Andek ou la Andek. Tu es arabe, blanc, euh, de couleur, euh, compétence. Musulman, chrétien, compétence. Si j'ai un message à envoyer dans le monde du travail, dans tout, compétence. Et après, on regarde. Si t'es pas bon, au revoir. Un ami on part sur la coupe du monde contrat jusqu'en 2026 je dis non non 2024 si on va pas en demi-finale minimum je m'en vais stop c'est normal le Maroc doit être en demi-finale un entraîneur étranger vient trois ans non mais attends il est en train de construire carte finale bravo Alik comme ça on change les mentalités alors je sais que ça va pas plaire, en quart de finale de Coupe du Monde. Pourquoi il dit Mais des fois, il faut dire les choses compétence. Et il y a beaucoup d'entraîneurs africains qui peuvent entraîner en Europe et dans de très bons clubs. Ouais, je pense que on peut leur faire confiance maanaam li muy wax moo am maanaam bu ñu toogee ba nga xam ne technicien euh, yeneen dëkk yi bu nu mënee ñëw di entraîner fii ñoom itam bu nu amee compétence war nañu mën a jaayi seen xam-xam Europe bañ a nekk loo ni euh, peut-être xeebeel la wala ñu jàpp ni ñoom seen jàng eggul noonu tey compétence la rek raar yi di wax euh, ci côté yëpp. mais li mu wax xel mun na nangu parce que aussi tamit nit da nga koy jox chance am. Mm. li mu bëgg a expliquer mooy tey da ngay gis nit ko wex ñew européen ñew Sénégal wara a entraîner équipe ñu jox ko temps tay bu féké sénégalais bi la temps bobu duñ la ko jox da ngay def ben faux pas ñu né no xamul dara or que sport que soit que mu nekk joueur bi que soit que mu nekk entraîneur bi ni muy gagner expérience si ni muy entraîner la parce que échec boy dem amna lo ci jang jàng. la.

nous équipe bi ba mu défendre mais défendre dañuy parce que ancien international or que n'était pas ça il faut que ñu nangu tant que nous jox entraîneur suñu chance mu am benn constance mm-hmm. tey du ñu dem lan permettre Sénégal aujourd'hui mu arrivé dem jëli ji Coupe d'Afrique parce que constance bi la conscience. dañuy wax aussi si sport anglais biñ démé ba affaire bi jafé jafé jafé dem ba am mu met ñom dañu toogaat seen biir oo ñëpp les anciens sportifs tout ça toogaat xol si ban procédure lañuy ñuy dem ak anglais nan lañ wara a comporter woo nan lañ war def pour mën arriver tay ji boko xolé légui biñ koy def ça faisait 6 ans tay peut-être mëna nek 8 ans ou 9 ans te dañ lay wax né la même tay souvent pour nga défar ben génération il te faut 6 ans, 7 ans ou 10 ans ñom ñolay gagnel kon limuy expliquer ni moy nañ jema jox entraîneur yi chance club di dem club, mm. soit que club soit que équipe nationale ngay dem projet direct mais aussi timit nañu xamné métier entraîneur aussi tey mën nga ñëw mu dox. suba mun na bañ dox. la mama Wydad Athletic Club la formé woo te mi ngi fofu nak andi la nga xamni moy xam-xamam tay ci équipe nationale bu Maroc bi dañuy xol un peu euh, benen parcours moy parcours wa Portugal parce que ñom ñoy jàkkaarloo ak Maroc Portugal itam ñëw na ak ki nga xamni moy mooy staram di Cristiano Ronaldo mais mom sax euh, temps de jeu bi taxu kaa bari ñu bari ñi ngi naan sax ndax nekkul ne dafa merci pet mais entraîneur bi mo def choix bobu Portugal dafa door 3 à 2 si c'est un premier match Portugal Uruguay 2-0 Corée du Sud mu 2-1 Portugal bi mi egg fa nga xamantene moy de finale bi dafa door largement Suisse 3 buts à 1 mu n'a nag koo nous avons nañu japp ni mom moy favori ci kanamu Maroc ëllëg dañuy japp ne kon euh, Maroc moy outsider bi mais Portugal mom mo am droit def jeu oui, c'est sûr C'est sûr que Maroc je euh, naa posture boobu la ñu mhm. parce que déjà Portugal euh, par rapport à l'expérience, par rapport au parcours et tout. Mhm. mais tey soo dee xool Portugal euh, si parcours est bi am na défaite contre Corée. mais je pense que même contre Ghana. je pense que peut-être faut ay erreur motax ñom ñu muju gagner Ghana. mais Ghana munoon na leen gagné. 3-2 le match bi mujj. mais a naa ni gagner Ghana na leen a gagné. donc pour wane ni rek que Portugal. Euh, nekul foudre de guerre comme on dit je pense que Maroc a un plan am nañ taxawal xam parce que tamit dañu ils ont encaissé des buts hein mm. xam nga ñaata bi la ñu encaissé mais jël nañ ay buts je pense que ñu ngi ci 4 buts ou je ne sais pas li ñu encaissé donc pour dire que ni eh, c'est une équipe perméable alors que bu Maroc je pense que Ben but la ñu encaissé. donc xam nga genre compétition yi mel nombre de buts yi am solo. voilà nombre de buts mais équipe qui koy faral di gagner, mooy équipe yi encaissé le moins de buts. parce que si tu 0-0 si demee ngeen dem tiro but. waaw su dee yow baax nga nga gagné. donc défense généralement mooy gagne mooy gagné compétition yi mel contre Suisse 6-1 là. voilà ah, voilà donc à mon avis yaakaar naa ni euh, Maroc ils ont leur euh, mot à dire sur ce match-là. Mm-hmm. D'autant plus que peut-être yaa ngi wax euh, Cristiano Ronaldo. mais yaakaar naa ni entraîneur bi pa am na génn nañ ko si benn match. mu wane ni euh, neex ko. entraîneur bi aussi jël na ay décision par que entraîneur aussi je pense que. situation yi mel noonu ngay jël décision. loo nekk star star moom moo yor ba pare ki ko remplacer dugal ñetti bi encore. donc je pense que. seul joueur bu def triplé ci. voilà si si <laughs> coupe du monde. mais man fi may waxee def attention juste parce que. Euh, d'après Maroc euh, nañu avons Portugal Portugal est favori mhm. parce que le discours entre bi mhm. folie mhm. parce que man li may wax ñun tay Afrique naka la ñafé ba atteindre les demi-finales coupe du monde c'est le plus important maintenant Portugal match ak match yi passé du doon ben Espagne du Portugal. parce que l'Espagne, tax Espagne du Portugal parce que Espagne équipe bougée là, mais Portugal non seulement équipe bougée mais non seulement équipe bougeait. aussi Comme ça d'un côté boobu nañ attention je souhaite que Maroc gagner parce que nous, en Afrique sommes la bonne place. mais quand même aussi limite attention à Portugal parce que Portugal aussi il a des jeunes joueurs dañu hein, non seulement euh, euh, Silva et tout ça dañu am de technique yo xamné bu situation bi la euh, ballon pied pour dem donc ce serait pas un match facile comme Espagne parce que Espagne aussi il est Europe Portugal Europe mais Portugal Europe Afrique la dañu dañu match Portugal Maroc na xoole Portugal ni Croatie defe tey euh, matcham bi contre Brésil parce que ñoom dañ lay yóbbu à l'usure mm-hmm. possession de balle comme ni ko Espagne di defee di jël ay quatre-vingt-sept pour cent possession ñoom fekku leen ci mën nañ la bàyyi ak bal bi sax tere terewul ñu lay football mm-hmm. tamit euh, défense bu baax te expérimenté moom lay compartiment yëpp dañ ko dañ ci am ay joueurs yoo xam ne yu expérimenté lañ te mm-hmm. ñoo xam ne chaque occasion mën nañ cee euh, génne équipe bi kon Maroc war na leen suuraale bu baax a baax a baax li nga xam ne mooy mooy mooy di équipe bi bi dékku ko bu ñëwee na taxaw xool lan la ko indi ba pare te tamit bu mu ko may jàmm comme ni mu def ko rek Espagne bu ma fu mu fu mu jógee rek nam affaire mel ni saako yemb ci ci <laughs> ci ci yemb ci ci ci biteel daal boo xam du mën a génn. ñoom tamit ñu ngi jouer seen jeu en tout cas waaw ñu def li nga xam match bi ñu def ko rek contre Espagne ñu def lu ko raw. contre Portugal bi bu bëggé demi-finale. waaw en tout cas dañ leen koy ñaanal benen affiche demi demi quart de finale yi ben affiche match ay européen lañu Angleterre mom mo nu ci coupe du monde bi wara a ak France Angleterre bu nu gisee fi mu jaar dafa Iran dóor yu metti 6 buts à 2 dem ak États-Unis États-Unis tenir ko en échec ñu def 0-0 Pays de Galles Angleterre dóoraat ko 3-0 huitième de finale yi euh, Angleterre Sénégal la Dan 3 buts à 0 moo tax mu egg fi nga xamantene moy quart de finale mom tamit itam dina jàkkaarloo ak France France bu Kylian Mbappé mu nek meilleur buteur jamono ji ci li nga xamantene moy coupe du monde bi bu nu xoolee parcours France itam premier match am France a fait une large victoire sur l'Australie 4 buts à 1 France door Danemark 2 à 1 Tunisie Montenegro, France en échec am 0-0 Avec moi, mu un match nul pour vierge la leneen lu ñu wax France dafa Pologne 3 buts Tunisie Moko 1-0 voilà je me rappelle parce que tout simplement dañu ne deuxième équipe pour France bi lañ ko jox deuxième équipe Tunisie nous avons 1-0 def comme Sénégal France bañ ko 2002 finalement euh, Tunisie moo ko door 1-0 mu doon ñaari équipe yoo xam ne baan ñoo ngi ko doon wax dina nekk benn duel européen mais également dina nekk benn derby boo xamante ne euh, ñaari équipe yi dañu yàgg xëccoo ci football mbub mi ngi koy wax sànq mu doon match boo xam ne dañ koy xaar. match bi moom ñëpp moom la ñuy xaar. <laughs> ginnaaw match Maroc bi Afrique war a football euh, ëllëg match France Argentine mooy moom moo moom moo capitaliser lépp. Mm-hmm. loo xam moo jëm ci wàllu football ndax déjà ñaari équipe yi. Mm-hmm. booy xool danga nga naan dañoo tolloo doole. mooy attaque. muy milieu terrain muy défense bi yépp da nga naan ñaari équipe lépp ñom ñoko ñom ñoko bok waaye boo gisee sen parcours jëm ci li nga xam ne moo di coupe du monde bi nga xam ni dinañ nekk match bu ouvert. tamit match bi képp koo xam ni moom moo la gën a teg bal bi gën la gagné ay deuxième ballon gën la gagné dee gën la nangu milieu terrain bi. kooku mooy mooy mooy gagné match bi nga xam ne mooy dox ci diggante Angleterre ak France mm. te tamit dafa am loo xam ne seetlu wuñ ko ci coupe du monde bi gis nga ñaari équipe yi doon doon def match de poule fexe bañ dóor leen ci match yu mujj yi mm-hmm. Mm-hmm. biñ génnee dañoo am jafe-jafe Brésil tey am na ko mm-hmm. ñuy xool ba xam France dina am même jafe-jafe boobu mais tout le temps match de poule da ko war a jëlee lépp ba teg sa équipe A ba mu dem football ba gagné ko beneen leneen looy changé nga nga def ko mais bàyyi ba ay dernier match ngay def équipe B bañ dóor la ci toujours équipe bi dañuy jàngee ci défaite boobu xool ci say faay daal la ci da fexe dañ def dóor jàpp naa ni Croatie mhm. match bi euh, Cameroun contre Brésil jël jàngee nañ ci lu bëri ba tax ne tey may ñu Brésil jàmm ci match bi jàmm Angleterre France benn affiche la boo xam ni dinañ ko xaarandi bu baax a baax waaw affiche la benn classique la classique européen la defe naa ni match bu am solo la mhm. Euh, mais li baan di wax noonu je pense que dama koy dëggal parce que France quand même euh, parcours bi ñu wane nii bi début beeg léegi c'est pas très rassurant mm-hmm. parce que même match bi ñu gagné Pologne bu mujj bi mm-hmm. soo dee xool 3-1 la mm-hmm. mais match bi équilibré woon na trop moy limay wax rek ñom peut-être euh, production wu Mbappé si le seen lu bari dépend je pense que su Mbappé nekkoon Pologne si match bobu Pologne mooy parce que ñaari but yi moom moo ko lijjanti def ko hmm. légui nak Angleterre aussi soo dee xool seen collectif hmm. ils ont un bon collectif surtout si match bi ñu jéeg ñun hmm. benn jeu bu gaaw ba paré yoré ay xalé donc ñom dañ def jeu de possession dañ def jeu de transition dañ def pressing bu am doolé donc loolu moy wane ni que ba pare ñoom euh, xam nañ ni que clé wu match bi aussi si production Mbappé lay doon parce que tay jii ñom ñi euh, préparé Walker parce que pour mu def marquage bi si mom tay ji soxolé même euh, Pologne latéral bi nekkoon fofu le jour là il a fait un très bon match ba ben période mu match parce que dafa metti mettre nga téye Mbappé moom seesee voilà mais ku mel ni Walker je pense que ni <laughs> mun na ko marqué. Mm. léegi nag euh, si lay dépendre. Mm. parce que quand même France quoi qu'on puisse dire hein, man euh, au niveau de leur entre-jeu gisuma ni équipe bu dëgër a je pense que militaire, Anglais Angleterre moo ëpp doole en France. peut-être ñoom ils ont quelqu'un comme Mbappé qui va faire la les différences. Mm. mais sinon si côté boobu yaakaar Nani ah su subaa mom match bi du nek match bu yomb du nekk match bu yomb ni kon du nek peut-être match bo xamni ne dina bëri but peut-être dinañ dem tamit ba ba tir au but wala ba voilà ba 120 minutes peut-être. moi je dis que c'est un match ça va être équilibré. Mm. parce que euh, France euh, pour man. Mbappé il est là mais il faut faire attention Dembélé aussi parce que y a ah, Mbappé y Dembélé mm. mais non seulement bu loolu am nañ Giroud toujours day xaar mm-hmm. ñu génn centré mu Nous aussi mm. aussi bul fàtte aussi. aussi y a Griezmann seen ginnaaw foofu aussi donc je pense qu'après le problème bini ñuy am foofu noonu tey nga dem équipe de France effectif ah pardon Angleterre effectivement attaque le boo xam ne ñoo collectif mm-hmm. équipe de France parce que sommes presque dañuy jouer ba pare dañu am neuf numéro neuf boo xam ne day décroché comme un numéro 10. c'est-à-dire mm. équipe léegi nag après je pense que match bi mm. fii ñuy fii muy jouer si mm. les deux axes trop lay jouer tey da ngay ñëw ak centralu euh, Angleterre dañu dix da nga ñëw ak centralu France dañu am problème je pense que match la bo xamné si deux axes centrales équipe bu ne mm. da un fa am problème mm. mais bo xolé sur le plan milieu terrain mm. sur le plan attaque ñom ñoo yam doole mais quand même Benin Angleterre moom mo gën collectif mais aussi nous ñoo ñoo gëna mëna teg un contre un. Mhm. pour pour pour individualité effectivement ah euh, ki ñuy wax euh, da nga wa ki ñuy ah. wax euh, Tite mom mo moom démissionné. moy mhm. ki nga xamante mom mo moo tudd Leonardo batshi mom moy entraîneur au Brésil dafa tekki nombal tankam ginnaw bi Brésil ñaké li nga xamni ni rek mom moy quart de finale bi sànq ci kanamu wa Croatie mom nak 61 ans la am japon na ni bu paré ci coupe du monde bi fay tekki li nga xamni moy nombal tankam d'autant plus que gagner leneen lu nu mën a wax xëy na mooy ñëw ci programme mu ëllëg bi rek bu ko defee ñu xam ni Maroc moom dina laale ak ña nga xam ne ñooy waa Portugal à partir de 15 heures te match boobu dinañ ko teg sur votre télévision nationale mu doon nag loo xam ne RTS moo ko tànn ngir nag mën a wane ki nga xamante ne mooy suñu représentant di représentant wu Afrique bi yëpp pour ñu mën ko xool xool itam ndax dinañu am li nga xam ne moom la ñëpp di xaar euh, exploit bi Maroc war a def xëy na ba jàll ci ay demi-finale Coupe du Monde pour la première fois pour une équipe africaine Badara dama lay remercier di wax salaam laam tey waa baax na ñu ngi koy <laughs> remercier ci ñu la passe. waaw merci encore vraiment émission bi nekk na émission bi merci bu neex trop vraiment di ñaan yàlla mu continuer ñaan yàlla aussi Maroc bi nga xam ne le seul représentant africain mu mun a def ay jéego pour football africain merci gën a am considération aussi à travers le monde. jërëjëf merci Mamadou merci à demain Inch'Allah. merci beaucoup waaw. ma baan ñu daal di nuyu rek Sadio ne ko ëllëg moom ñi ngi koy xaar. waaw so moom moo nar a ci place bi. waaw yow tamit euh, waa Pire ñi lay xaar. de moom moo tax mu def journal bu. Moussa Niang tey moom la dóor tey baax loolu la def di kontaan trop ñëw ci ci <laughs> émission bi di di joxe rek bu soobee yàlla ci gàmmu Pire bi nga xamal lu ñuy dëgmal suba bu soobee demain Inch'Allah, nous ñu ñaanal leen également wa Pire lepp luñ fa ñaan itam mu ci Sénégal yëpp di ndokkel itam euh, ki nga xamantene <laughs> monsieur le maire monsieur Ban, ñu koy def avec toute la famille di leen ñaanal am voilà merci beaucoup euh, chers téléspectateurs de nous avoir suivis merci de votre fidélité ñu jox leen rendez-vous allah nak leen ak programme sur votre télévision nationale